ñaata gàmm fi ne bare na de xaj man ba ba muy tawee te gàmm yooyu yëpp fi ne ni añuwal gàmm la dañuy fàttaliku bés bañ gàmm woon ñu di ko gàmmuwaat loolu lépp de mu ngi dagan mm-hmm. bii nii biddaa la mm-hmm. mënuma ko dégg xaj man sóor wér na ci foo dem ci àddina bi ba ci réew yi nga xam ne tey ñoom la ñuy dañ ne ay royuwaay lañ ci diine ñuy jël seen maam di ko màggal at oo ay borom xam-xam ñuy bind takk flag yi ci mbedd mi ñu ñu ñu di ci joxe ay cadeau yu mag pour màggal nit koo xam ne mu ngi fi woon seen maam mm. waaye su fekkee yonent bi la daganut bidaa la manuma ko dégg mm. Haj Mansour manuma dégg nit koo xam ne fu mu dugg mu am barke lu takk ci moom am barke lu ko gëm am barke lu ko bëgg am barke lu ko topp am barke ba pare mu nekk niti ordinaire loolu mënuma koo dégg Haj Mansour yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam balaa moo dugg ma a war naka la tuddoon Haj Mansour mm-hmm. yasrib mm-hmm. yasrib waaw yasrib mm-hmm. booba mook Serekunda yëpp benn la mook bundung benn la mook bànjul benn la yonent bi ba mu fa tuddee ba mu fa duggee nu mu tudd madinatul munawwar haj Mansour ba fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duggee lan moo xew ndax wérul ne ku julli ca jàkkaam ja am junnee julli lu tax la fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk dugg ndax gis nga feneen foo xam ne am na loola lu dul foo xam ne yonent bi sax ba màkk am na lu ko ëpp la ko waral mooy yàlla moo préparé màkk parce que xam na ne yonent bi fa lay juddoo maqdis parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ziyaare na ko mhm. madinatul munawar parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa la dem kooku du niti ordinaire ku ko bëgg sax da ngay mujj dootoo nekkati ordinaire kooku mooy sang bi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy géeri géer ñi mhm. kooku mooy sangi sang yi kooku mooy ki nga xam ne ñëpp moom la ñuy yaakaar ëllëg àllaaxira mhm. bu ñu demee ba nga xam ne ñëpp tiit nañu waxuma la waxuma la ab saalex waxuma la wulliyu ñëpp tiit nañu kooku dong bés booba mooy jóg jël loxoom teg ko ci dënnam ne ana lahaa bés bi sama bés la bés bi la ma yàlla la yàlla sédd moom kenn dong mooy ñemee dem su jóot ci ron boromam ba boromam ne ko yëkkatil sa bopp bi yow sang bi yow mustafa sallallahu alayhi wa yëkkatil sa bopp bi te nga wax ma li nga bëgg loo ma wax ma defal la ko kooku ndax jarut ñuy fàttaliku bésam. Mm-hmm. Haj Haj kooku mooy Moustapha sallallahu alayhi wa kooku nag waxam du jeex suñ ko toppoon fii ba suba du jeex kon ni ñuy def rek Hadj Mansour mooy ndokkeel la ci yow fekkee gi nga ko fekkee ndokkeel ci nag comme niñ ko waxee ci tàmbali bi ki nga xam ne moo nekk ci boppi réew mi di His Excellency Cheikh professeur docteur Yahya Ejeje Jammeh ak gouvernement am lépp nag tàmbalee ca ki nga xam ne moo nekk ca bopp ba di soxna si di ay Aysatu Njaay Séedi ak cabinet ministre si ak mboolem heads of department seeg ba ci këcc gën a suuf ñëpp ñu ngi leen ciy ndokkeel Haj Mansour ñu ngi ciy ndokkeel kilifa diine ca bopp ba nekk ca imam ratib euh, cheikh imam Cerno Alin Moaska euh, ñu ngi ko cay ndokkeel ak bépp élimaan di ci ndokkeel islamic organisations yi nekk ca bopp ba di Cheikh Mouhamadou Lamine Touré eh, bu Supreme Islamic Council Haaj Mansour ñu ngi ciy suñ mbokki christians yi mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla daf ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina waxul lil muslimina de waxul lil muminina de lil alamina kon yonent bi képp kuy dund ñu ngi la ciy ndokkeel ñu ngi ciy ñi dëkkee réew mi ñu ngi ciy ndokkeel ñi nekk ci bitim réew di ñaan suñ borom subhaanahu wa taala yal nañu yàlla taas ci barke bi yonent bi yal nañu yàlla bëggloo yonent bi yal nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg bi jaay seydi loraa tañ fekkee yu baree bari xanaa léegi ni ñuy def rek Haji Mansour ñu delloo la microphone bi pour nag waxtu wi waxtaan bi mën a continuer Haji Mansour jërëjëf Haji Ousmane yaakaar naa li nga wax su fekkee ne mën na cee teg dara it du bari lool ah wax dëgg yàlla yooyu ñu ngi laan ci fasaxa gi ak ak ni nga yàgg ci lii jamono bu nekk rek di gën di leeral ah juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di altine na mu tàmbalee mu yegg nag ba ci jamono joo xam ni gën yaatu lu may nag di ko màggal ci wàlli diine li nga xam ne moo lañ ju fekk dem na ba suñu réew yi ñu yokk ko def ci ay xuma xuma di tëgg ay ndënd li ñoo wax gàmmo sabar ah lii xew na lii xew na ci jamono te daanul xew ma ne lii lépp nag ak yokkute lay loo xam ne lii doy naa sant yàlla di ko def ci xumbeen goo xam ne gii xam nga wax nañ fi baati gàmmo waaw ci li ñu fi fekk nag ca baat ba nit koo xam ne kii sa kàlla ku nekk xam na ne kal ci saxaar la am ci bato soo gisee ñu naan kal nit koo xam ne kii sa doom bi bàjjen sa doom doomi nijaay wala koo xam ne kii eh, diggante njaayeen njoobeen fayeen njuufeen fii ñu naan di suma gàmmo la di suma kal la waaw kal saxaar bu xasee taxaw kal ba lu ñu am rek sotti ca moo tax ki nga xam ne sa gàmmo la it loo am rek mën nga ko koo wax te li ñu cosaan may moo di ne koko du sañ a mer déedéet ndax aadala bu nu fa fekk loolu xaj Usmaan junj na ko su ko defee nag baat ba fu mu bàyyeekoo li ci xaji Usmaan indi gis nga ci suñu réew yi mu nekk baat boo xam ne bi gaati wolof rek a ko wax gàmmo ah ñu okk ko nag mën a def ci ay gàmmu sabar daan ko defee ci Banjul ci barab yoo xam ne xamoon nañu leen dafa nekk barab yoo xam ne yi nag dañu tasaaroo léegi soo demee ca afda yi ca PWD foofale walla jumaa ji nga xam ne moo nekk ci afdaay yi jàkk jojale foofale ab bayal bu ubbeeku la woon ñu doon fa def ay làmba yi le bëre le ak gàmmo sabar yi le moom nañ fa daan def ah jamono dox nag ba kilifa yi ci Banjul yi ci afda yi ñoo ñaan naka nguur gi ca tubaab ba ne dañ mun a bëgg a sampa jàkka ñu sampa jàkka ju jële diggante 1923 1926 gis nga na mbir ya demee kon nag mbir yi sabar gammo dëgg-dëgg gammo sabar ñu ne dëkk am na dëkk bu ñoo wax kuli njigaan daxaar goo xam ne gi mu nga foon ñu xamee ko kuli nañ fa def sabar ah léegi su fekkee ne ci afdaay la foofa it ci babar barab yi nga xam ne daal nañ ko fa def PWD ca biir jamonoy dox ñu ñëw be fi jumaa ji nekk jamonoy dox ñu ñëw Hill Street Hagan Street Hill Street Kent Street yëpp def nañ ko fa ba soo jël taawun Peel Street foofu def nañ fa gàmmu ci jamono boo xamee ne nag politique baa ngi dugg ci réew mi ah tasaaroo daal di am ku ci def sa gàmmu woppa a ah, waaye nañu ko daan def ci réel bés bi gannaaw boo xamee ne gàmm eh, ci wàll yàlla ay gàmmu jàng màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nañ leen indi geneen anam goo xam ne gi nit ñi bëgg di tëggandande yi di woy nit ñi di leen woy ñu ñëw di maye lu yëpp màggal guddi gi la waaw daan nañ ko def ay fan ay bis ay yu néew yoo xam ne yi eh, ay wik yu bari la bis ay yu bari yoo xam ne daan ko def di woy nit ñi ñun di leen may jamonoy dox nag ba léegi a ah, di nga gis ne nag ah civilisation li ñoo wax nit ñi ku si nekk nag wax dëggum yàlla ndax ña xam ne ñoo ko daan def ay mag lay ñu woon ñooñu bi nga xam ne bàyyeekoo na fi jóg nañu fi gaañu nañu amatuñ ñu ko def lii moo di li nga xam ne. ah moo ko delloo gannaaw waaye li kibis bis bii tey nag kir yi nga xam ne ñoo ko def su fekkee ne ci Banjul la ah yàgg na ndax ah, ca afda lu yàgg la kër Cheikh Laaji Omar Faye Dobson Street yàgg na 1911 kër yaa Ana Sagna ba ah, bu yàggul rek leen doon màggal seen téeméeri at loolu daaw la gàmmu ga am na téeméeri at ñu ñëw nag ci gàmmu jumaa ju mag ji nga ma jumaa ji mag ji nga xam ne jumaa jooju moo mag ci Banjul ñu defa jullee Eid Independence Drive ah ñuy def ñu ñëw bi si bayal boo xam ne bii fi aj 22 nekk dafa def gàmmu googu waaye gàmmu googu daanuñ daanuñ ko def ca bés ba su bés ba dellu see ñu ngénte dina fekk nag Banjul yëpp dal di gàmmu ba noppi ndax ñëpp ñëpp mën faa daje loolu moo di gàmmu Banjul jamonoy dox nag waa ni ñuy jiiti ante Ajima Samba Cissé Koreen Haji Ousmane Dieng ci Lancaster Street ci Banjul ñun ñëpp ñu daan def gàmmu jàngale